mu mel ne ni ñu ko baaxoo defe at mu ne bis bi jëkk ci waxtaan wi dañuy jël kenn ci njabootu sëriñ bi mu ubbi ko bu ñu koy tëj jël ci njabootu sëriñ bi mu ubbi ko mu tëj ko ren nag ñu tudde ko jëmm ju tedd ju màgg sëriñ Moodu mu soxna Awa Balla mu maam Cerno Birahim ñoom ñii nag di njabootam ci ndigalu Serigne Moustapha ak ci kilifteefu Serigne Abbas ba nga xam ne mooy borom Daaru Tey ñu ñëw teew fii teewaay boo xam ne dafa ànd ak jëf ju mat ju rafet. nañu sant nañ ci waaye nag seen bopp lañ koy defal ndax fii day seen kër day seen barab lu ñu fi def seen bopp lañ ko defal. xam naa ne kër gi ñi fi am ay cër bari na ndax sëriñ Modou Moustapha ak sëriñ Fallou fii lañ leen dalale waaye ñu bari am na lu leen ump ci ne maam Thierno Birahim fii lañ ko wàccee am na garab gu newoon ci penku di dimb gii moo fa demoon ab xàmmikaay ndax fa la ko sëñ bi ne sama borom gërëm na la gërëm na lool nag li ngeen di fonk fonk daaru amul daaru fii la am ci suñ kër gi li ngeen di fonk fonk daaru la mu mel ni lii nii yàlla dafa ko jaarale ci loxo kuréelu daairatu ay ni mu génne ko waaye meññatum coono yi ñu baree baree bari la man koy njëkk a tàmbalee ci suñu Abdou Samad nga xam ne chaque année bu ñuy def rapport bii may def nii danaa ko fàttali ne xalaat bi ci moom la jóge woon xalaatu jataay yi ñu koy tërale mag ñi àndoon ak sëriñ bi moo xam ci wàllu mbokk gi la mbokku Mbàkke ak bu soobe ak mag ñi àndoon ak sëriñ bi ñu di leen ko cërale ngir di leen ci fàttaliku di nafaraat ci ñoom ak taalibe ak murit xalaat bi ci moom la jóge woon